Ousmane Noël nekkal ci li nga nekk rek Ousmane Noël réew mi kontaan nañu ci yow Ousmane Noël nit ñi bég nañu ci yow Ousmane Noël jeunesse bi kontaan nañu ci yow li ma gën a neex ci yow mooy gëm sa bopp bi nga gëm sa bopp fexe ba bokk ci nit ñi ñuy ràññee ci réew mi te ku am yitte nga fajal ko ko ku am soxla nga jàppale ko ci Ousmane Noël man Ketchup may wax ak yow maa ngi lay ñaanal ci barke laylatul xadr bii ci barke Seydina Muhammadu Rasulullahi bi nga gëm yàlla defal la jàmm defal la tawféex yaa nga ca kanam nag bul mës a gëstu ci àdduna yaa fi ne te yaa ngi def lu kenn deful. Ousmane Newel Dieng Baye Fall pire la man jaaykatu café la mais Ousmane Newel Dieng dama ko bëgg ndax lu baax li muy def di jàppale nit ñi. Ousmane yàlla na nekk président Sénégal billaahi bu ko defee jeunes yëpp am jàmm barki maam Cheikh Fall ku baax la ku oyof la fii mu ñëw nii géejawaay tey bëri na autorité bi ragal a teg seen tànk mais tey mbooloo mi yëpp ko topp yàlla na gudd fan yàlla na wér yàlla na continuer li muy baax li muy def fu mu teg tànk bu ko teg waaw lii nag moom defuluma dara moom xamuma sax mais billaahi wallaahi wa taalaahi place laa yor di jaay kam mais barki Serigne Touba lu baax li muy def sama téléphone bi moom rek laay seetaan barke Serigne Sall yàlla na ko yàlla defal jàmm jaajëf amiin très content sama ñaari siste yi ñoo seet sama fifita sama xarit bu yàgg depuis kaw la naa dem Faa ay dara ki kenn du ko présenté ci àdduna surtout Seydina Mouhamed Faa da nga seet sa xarit maa ngi seet sama xarit macha allah sama grand frère ñu kese gi suñu bulay nii nga recevoir ñu macha allah kontaan nañu bu baax a baax a baax di leen wax ni nag ñu leen jox rendez-vous UCAD le 28 incha allah ak Kaolack le premier mai incha allah. ñu ngi lay waaw def ay distribution de ndogu yu toj. incha allah lan moo la gën a neex ci le président Ousmane Noël Diagne. non moom daal lépp luy social daal si lay dox. incha allah lan nga gis ba mu marqué la. Euh, mooy bi mu woon si orphelinat ba te xale bi ndeysaan. loolu daal dafa touché. waaw jàngal fi yàlla gën a bàyyi daal incha allah sama sister la sama xarit la waaye surtout yonent la te maa lay ziare kon boo Kaolack ne ñu xaar le premier ak faedra na ñëpp xaar na ñëpp xaar ak université incha allah bi avec rek yàlla jiital bu koy jiitu yàllaaw njiit yàgg na am Moustapha nga ca kanam moom la yàlla faral Moustapha nga ca kanam yee yàlla ko jiital Moustapha nga ca kanam wa fii xaalana bii Ousmane yasna'u fii na alfan wa kullun xaqoo naaru sidna Ousmane daa jël teraanga ju bari jox yeneen Moustapha ne ca jàkka ja di naafila naan yàlla maa ngi lay ñaan nga fayal ma Ousmane yàlla ni ko nii nga def ngir jëmmi sidna Ousmane dinaa ko may morom mu juróom-ñaar fukki junni nit waroon. ah diggante ma xam ne yow de defal nga ma loo xam ne nag lii moo ma gënal ay milliards moo ma gënal loo mën a gis àdduna bi alxuraan ndax démb lii rek laa laa defalee cadeau benn xale bu jàngoon alxuraan ju ngi mel ne bàyyi ma juma bu yox may ko jox jën ji ma ko ministre ministre jox teg ci téeméeri junni dégg kon donc lii nga ma defal nii mbindeef mosuma ko defal ndax ma jox nga ma waxu yàlla jox nga ma luy dëgg ak li may wan na man sama diggante ba yow ak la allahu la xaq wala qolla mooy di sama diggante yow ak alxuraan nga ci nga ci nga diggante bi kon donc la ma jox kàddu Cheikh Diop Mbaye moom neex na ma trop su su ma stressoon su ma lépp lu ma defoon rek tey jii moo naan alxuraan am naa si cër te démb laa lañ joxe kàddu ngi jëm alxuraan te Cheikh Diop Mbaye ñu jox ma alxuraan kàddu te nag di n'importe qui n'importe qui bi laa la jox addee sëñ Tuubaa lu par ubbi neex yàlla ba si ñu yëpp neexee si yàlla na bokk barke Cheikh yàlla boo tàgg fenn yàlla yàlla la buntu ma si yëpp amiin barke waaw yàlla si lépp neex Cheikh amiin barke waaw yàlla si yëpp neex ki addee sëñ Tuubaa la ki la yàlla yàlla fay la barke allahumma amiin jërëjëf jërëjëf am suuf mu jëlee la mu gis leen bu weex defal la gramme bu gis leen bu weex tal tal tal tal lan lu laa euh, ordinateur bàyyi nii dëgg na woon ñu may la ko ngir jëmm Serigne Touba ma ne dinaa la ko may ngir ndax Serigne Touba mooy man may xaadim rasul xaadim rasul te Serigne Touba boo ko tuddee tuddee yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bégal nga ko may wax ne defuñ ko ngir dara ndaxte étudiant nga génie civil ñu yaakaar leen ëllëg ci réew mi ne ëllëg yéen a yor Sénégal ñu yaakaar ñu def ko lillaahi wa rasuuli xaarum ci xaw ma la xamuma yaa ma doo gis dama dem xool message gis ko mu fekk nag mu nekk fi ma jox la ko ngir te yàlla rek tax donc euh, du na gaañ mais lii di si gërëm aussi suma mentor monsieur le ministre Diène Farba Sall di si gërëm aussi le président Macky Sall lii la ñu sant président Macky Sall daf ñu sant ku waay am rek na nga dimbale sa projet sa projet président Macky Sall sant ñu doon ay lantinoor lu ñu am wàcc jox ko ñëpp et donc yal na la jib